Euh, jamono yi ñuy wax ay vaccin mais maam li gën a jàmp tey xoola fu mel ni dakaar ji de caaree kaw seen maire bi fii la génn di ko dénoncé mhm. euh, double flux nga xam ne benn classe téeméeri ndongo ak fukk ak nangam ñooy fréquenté ci benn salle de classe bi te ñooñu dañuy xëy am ñeneen ñu gont mhm. nga xam ni kon ñaari téeméeri ndongo ak ñaar fukk ak yu topp ñooy fréquenté benn salle de classe et loolu fii ci dakaar la mhm. mais mais loolu loolu saafara ko moo gën a nekk farata yenn yi ñuy exiger nit ñi benn. ñaareel bi ci des seen recrutement jàngalekat yi nga xam ne nañu cinq mille jàngalekat la ñuy jël. Saourou seen ni leen jël leen ñi qualifié doon ay enseignants ak seen ay formation bu leen jël seen i ay quota politique bu fekkee gàpp bi matul ngeen jël ci ñu am diplôme académique loolu mu gën a nekk farata. Mm-hmm. et jéem a construire ay salle de classe bu fekkee am na ay CM yo ay espace ñu jéem faa def benn lycée parce que bari ay lycée yoo xam ne noonu la débuté ci CM lay commencé ba yàgg mu yokk ci yeneen salle de classe ba ñu wut fa ab lycée ci jàppal jàpp ndalu ak IA bi ne ci gox boobu. loolu gis nañ ko ci ay dëkk yu bëri. mais bu fekkee ba CM classe ya fa nekk sax déjà doyul wala mu am ci ay classes yoo xam ne ay abri provisoire lañ ko defee boole ci nag bi gën a bi gën a reetaanlu te wax dëgg yàlla même ñoom ñu koy def xam nañu ni. dañuy natt dañuy nattu askan wi dañ leen di nattu waaye xam nañu ni du yoon. parce que nit ak xalaatam xam nañ loolu du yoon. yow nga ni dama lay ñëwal tëni bi ngay jàngee jee at mi di ci def fukki milliards mais xanaa kon dafa am benn parti bu ñu koy jagleel bu fekkee programme bi pour ñetti at la ñetti at yi nekk trente milliards mais premier phase bi day nekk dix milliards kon benn parti ci école publique ñooy am tenue beneen parti bi kon xëy na déwén la ñuy am mais amoon ren déwén xanaa du am. Mm. bu fekkee chaque année dix milliards la ñuy dugal pour benn parti xanaa ñi amoon ren déwén du ñu am wala tenue yooyu nga am di ko jàng jee xanaa bi ngay jàng ren moom ngay jàng déwén est-ce que est-ce que ñoom ñu ngi xalaat ci nit ñi démarche yi nga xam moom la ñuy def léegi ñu ni la tenue yooyu baax na mais dix milliards yi ngi ciy def mais def ko ci ay salle de classe ba noppi parce que suñu réew mi am na lu toll ci juróomi junni abri provisoire et ñun ñoo koy wooyee noonu parce que tubaab amul leneen lu mu koy wooyee du lu abri provisoire mais loolu du abri provisoire de du fu nit war a xam nga tubaab mun na defar lu mel nii comme fi ñu nekk nii ñu defaree ko ak benn façon matière boo xam ni du continuer ñu ni abri provisoire la fu nit mën a làqatu di fa suturlu en attendant mais suñu école yi yi xale yi di fréquenter du abri provisoire. Mhm. deewukaay la. parce que sindaxa nga fa. jaana nga fa mbotta nga fa. yalta nga fa. du nekk mën na faa génne caana nga fa. sans compter nag fel yi parce que xam nga xale fu muy toog. ak bien-être bi mu laaj ndox mi tuur ak yu mel noonu day amaale ay fel mm-hmm. loolu ñoom xam nañu ko gis nañu ko balaa nga ñu ñëwal tëni nag tàqale ñoo fel yi ak jinax yi mbóot yi mboot mbott yi ak gunóor yi mooy yitte yi loolu moo gën a nekk farata léegi nag yooyu yëpp nguur gi jël ko teg ko fële Ablaye Fane ni leen d'accord mais am na école yi nekk ci ndox mi mm-hmm. léegi wax leen ci loolu ba noppi ñu génne école yi nekk ci ndox mi ñu lànk dégguñu boobu euh, mbóoj mbóoj bu CUSEMS ni leen d'accord mais amoon nañu ay accord yu ñu signé woon yoo xam ne yéen yéen a ko woon ba noppi ñu comprendre leen ñaari at yi année scolaire 2019 2020 2020 2021 yépp comprendre nañu leen am lu ñu teg ci suuf ndax mbas mi mais comme mu ngi dellu gannaaw école yi waaju ubbi wax leen ci accords yi ngeen signé woon ñu ne dégguñu ñoom daal fi ne ñaar la ñu dégg vaccination bi tenue kese moo fi nekk fu mu nekk nii euh, euh, Birahim su weesoo tenue yeex ñoom seen ak euh, conditions yi nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono ji ci yenn lekkool yi comme El Hadj ni mu ko waxee ndox mi abri provisoire yi ak njiitu réew président Macky Sall conseil des ministres fàttali neen dafa bëgg ubbi tey jàng tey ndax loolu dina mën a ne. waaw xam nga Mambay gestion réew dafa am li ñuy woowee ngay jël priorité teg ko. xam nga bi fi mbas bi ñëwee mu indi jafe-jafe sur le plan économique dañu ne lañ doon defar ci terre. lañ doon defaat ci BRT dañ koy dakkandoo dañ koy dañ koy arrêté gum parce que am na beneen priorité bu taxaw suñu kanam. Mhm. mooy gestion wu li nga xam ne moom mooy mbas mi ak yu ni mel. nga réorienté sax xaalis bi nga xam ne moom nga waroon dugal ci yenn ci ay chantier comme ay BRT nga ne dugalaat naa ko ci beneen priorité bu fi taxaw. mais c' exactement c' est aussi ci lu jëm ci wàllu jàng ak jàngale. c' est ci lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram c' est ci anam bu mu mën a doon nguur day jël priorité ne ni. jamono moo laaj ñu jiital priorité nangam priorité bi tey mooy justement gis nañu fi fan yee passé je pense euh, ci booru géej waaye ñuy wax école à double flux ñii di xëy jàng tey bu ngoonee ñeneen ñi jàng parce que amuñu salle de classe yu doy te élèves yi bari nañu ñuy waxu abri provisoire ba léegi nguur gi mu ngi jéem a résorber le gap pour dindi yenn abri provisoire mais àgg gu ci mais balaa ngay àgg ci ay tenues scolaire boo xamee da nga ne ni c'est pour ñu bañ a mën a xaajaatle élèves yi mais xaajaatle weesuwul kii di jàng ci école en dur bu ñu peinture am ay bâtiment am ay table keneen ki moom ci même classe bi di jàng ci école boo xamee ne turu école la abri provisoire la dañuy lal basang wala ñu jël ay mool euh, tegale ko pour mën a toog wala ñuy jël leneen ak leneen di ci mën a toog xaajale weesul loolu ah. comme da nga ne ni da nga bëgg yemale ñëpp mais jiital lool artisan yi nga xamee ni ñoom ngay euh, mbubboo ne ni faw tamit ñoom ñu am seen bénéfice ci euh, confection de tenue yooyu mais d'accord d'accord mm-hmm. mën nga jàppale artisan yi mais ci beneen ci beneen anam xam nga lan may jàppale artisan tey menuisier yi bois par exemple seen jafe-jafe mooy lan lépp lu jëm ci intrant wu bois euh, intrant wu li ñuy liggéey jafe na cher na ci ñoom mm-hmm.